waaw fii léegi li waral suma teewaay mooy benn sénégalais laa comme tous les sénégalais euh, boo xam ne dama gëm sama réew gëm sama dëkk. ma ñëw tamit en tant que xaritu ministre de la justice nuy maître Malick Sall suma xarit la tey jii ma daje fi tamit ak Antoine Diome mu nekk suma frère bu yàgg avant mu nekk ministre de l'intérieur nekk suma xarit ba pare euh, ànd ak président de la république ñëpp xam ni suma xarit la donc. li ma fi indi li ma fi indi dafa bëri kaaw ministre yi ci la bokk mais kaaw président ci la bokk et puis en tant que citoyen sénégalais war naa mën a ñëw sénégalais. instant bi ñi boo xamante ne ñu ngi wax lu bëri ci justice bi te ñu war a inaugurer centre sa kanam ban gis-gis nga ci am. non sentiment de mbégte laa ci am parce que tey jii xam nga gars yi dañuy wax critique mais critique mooy tax nit di góorgóorlu mooy tax nit di ñafe. parce que tey bu fekkoon ni gars yi dañu bàyyi justice noonu rek kenn waxul peut-être effort yi ñuy def nii. mun nañ ko def mais mun na yéex tamit mais boo xoolee ministre Malick Sall dafa nekk koo xam ni dëgg dëgg neex yàlla man dama ko apprécier parce que bi mu njëkkee ñëw remplacer Ismaïla Madior ñëw di door a jël justice bi dafa am benn parole bu mu njëkk a wax mu ne moom li ko gën a motiver li nga xam ne bokk na ci ay mébét yi nga xam ne dafay xeex pour def ko moom mooy fexe ba désengorger kaso yi te boo xoolee kaso la plupart gars yi bëri dañ fay dem wér mais bu ñu fay génn feebar lañ fay jëlee parce que xat na bari na problème ñu xalaat bracelet électrique et puis ma gis ni ñoom ñu ngi ci yoon bi parce que man xam naa ko jege naa ko suma xarit la directeur construction fii muy ko mu suma xarit la gis naa ni yooyu yëpp waxu ko rek bàyyi mais daf ko wax ba pare nekk ci donc moo tax man franchement ma koy soutenir di ko jàppale mais nag boo xoolee ñuy wax tak jour affaire justice mooy les les opposants mooy ñi nga xam ni parce que opposant tamit il mu am ci lu mu jàpp xam nga tey damay profité ci occasion bi lii bokkul ci question bi mais démb lañ doon inauguré TER bi mais biñ ko inauguré ba pare dégg nga Abdou Mbaye lu mu si wax naan TER bi moo gën a yeex moo gën a def li ça veut dire que ni yow fils à papa nga mosoo defal Sénégal dara nit dem xeex gagné pouvoir am ñëw jëf la premier ministre ngeen dem ba mënatu leen àndoo ngeen tàggoo kenn mësu ko dégg mu wax lu ñaaw kooku da nga war a rafetal seen diggante parce que poste de responsabilité bu gën a mag premier ministre à part président amul. donc bu la ko nit defee ci réew kooku mënoo ko fay te Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk Macky Sall bu jéemee créer terre man j'ai des amis ivoiriens boo gisee dem ci presse bi gars yi bind nañ ko fan fa dem mais dama ñoom xam nga ñoom dañu free dinaa man yéen vous avez le meilleur président d'Afrique parce que ñun on a besoin de métro ici chez nous on a besoin de terre donc ñoom dañu dañu free dañu feex sénégalais il faut ñu comprendre ni nit ki mun nga opposer mais nit bu fekkee ni dafay def lu baax ci dëkk dañ ko war a apprécier te tey Macky Sall dëgg dëgg neex yàlla loo ko mën a waxal xam ni jàmbaar la te liggéeykat la bi mu jëlee réew mi léegi ça fait neuf mais li mu fi def BRT baa ngi nii di ñëw stade olympique bi mu ngi nii di ñëw Sénégal dañ daan génn fii di dem di jéggaani di fubali feneen tey xoola stade bi mu def tey ku jaar jam eh, ñaajoo xam ne mu ngi liggéey comprendre la autoroute à péage bi mag euh, bi fi mag Ablaye Wade di jóge mu ngi ko bàyyi Padois tey mu buddi ko yóbbu ko fépp ci àddina boo demee Foundiougne pont yi c'est que Macky jàmbaar la ñi naan ñëpp Macky nag liggéey mooy les opposants véreux ak sénégalais yi nga xam ni xam nga am na ay sénégalais yoo xam ne ñu liggéey dañ bëgg di xaalis te duñ sonn donc ñu naan réew mi neexul ak réew mi def na nii mais dëgg dëgg yeex yàlla ñiy liggéey ñëpp ñoo ngi gis seen ñoo ngi seen bopp ci réew mi. Ah, justement bu ñëwee ci terre bi comme ni nga ko waxee démb inauguré nañ ko mais yow en tant que Rufisquois euh, aussi en tant que casquette candidat à la mairie de Rufisque ban gis nga am ci ci ci ci terre bi. waaw man damay rafetlu ni terre bi euh, baax na mais ñun Tëngéej daf ñu xaajale parce que boo gisee terre bi dafa xaajale. Rufisque bu njëkk bi ak Rufisque bu bees bi parce que boo xoolee bi ñuy wax Rufisque bu njëkk bi mooy jokkul coxoo ndënku këri kaw këri suuf Mérina Thiawlène côté yooyu loolu moom mooy Rufisque bu njëkk bi boo xoolee bu njëkk bi beneen bu bees bi mooy HLM Cité Taco Nimzat Fass côté bi ñu dëkk Rufisque noor bi léegi nag tey dafa dafa doon yell ci ñi nga xam ne tey jii ñooy les autorités locales yi fa nekk bi nga xamee ni war nañu teg terre bi waroon nañu mën a discuter ak état waxtaan ak ñoom mais comme defuñu ko amuñu xarañte boobu ñun yàlla dogal na nous sommes des candidats yoo xam ni incha allah dans un mois dama leen di gagné balaa midi ma gagné leen. loolu nag il faut que comme man président suma xarit la ñu jéem a négocier ak président waxtaan ak moom ñu xool point yu stratégique yi nga xam ne nekk na Tëngéej fu mel ni passage à niveau dafa naa waaru fisc yëpp bu ko déggee xam nañ ko foofu waroon na mun a am benn échangeur. parce que léegi mburgal xew na mburgal mooy loolu di nekk ci suufu train nga xam ne bu tawee day fees boo xoolee booy papa yàdd bi daan bëre foofu la defee accident ba faatu fan yële passé romb naa fa di dem euh, di def porte à gis ay boy yu fa accidenté seen bopp yi nekk si gris yi donc mburngal dafa xew yi donc passage à niveau dañuy ñaan président mu defal ñu fa benn échangeur bokk na ci sa li nga xam ni man sama programme la pour bu ma gañee ma discuter ci ak président boo xoolee euh, juuti ba mooy fi daral bi nekk jëm côté HLM foofu war na am benn échangeur soo demee fi ñuy wax tali Diop bukki nga xam ne moo génn Bourdieu ah côté Cap de Biche bi foofu war na mun a am benn échangeur fi ñuy wax Colobane mali Guissé soo demee ba Colobane Malick Guissé foofu tamit war na mun a am benn échangeur parce que boo xoolee benn échangeur rek moo fa am instant bi boo xam ni c'est fonctionnel mooy bi nekk ci course bi mais boo xoolee yi may wax nii yëpp ay ay ay ay ay côté la yoo xam ni su amee échangeur dëgg dëgg neex yàlla Rufisquois yi dañ ci gis seen bopp bu baax te loolu bokk na ñun ci sunu programme parce que tëngéej il faut ñu jox ko ku fa juddoo darangu ci kanaal bi sangu ci géej gi sàcc mango pekk fa mais on n'a pas besoin d'un maire boo xam ni dañ ñu koy imposer am na maire yoo xam ni dëkkuñu tëngéej ñu ngi prétendre jiite ko te ñiy làmbaay lañ juddoo ñiy juddoo mexe dëkkuñu fa nañ dem si dëkk yi ñu dëkk comprendre la mais munoo ñëw dëkkoo ci dëkk ñëw nga ni yow dëkk bi nga bëgg a jël dëkk soo ko bëggee jiite danga fay am bàjjan am fa ndijaay am fa goro nga xam ne tey jii bu la joxee dëkk bi nga mën leen a yërëm donc nag ñun loolu bokk na ci li ñu li nga xam ni bokk na sunu programme ñu bëgg ko def beneen bi ci des li ñu gën a motiver tamit ci dëkk bi leen juddoo màgge fa te bëgg nañ def dara pour la ville de Rufisque. yow comme ni nga yow waa Rufisque mais terre bi lan la mën a bi lu positif. waaw xam nga Rufisque waaw mais xam nga xaajaloo bi lu metti la mais boo xoolee tamit am na leneen leneen li moom mooy euh, Rufisque tey jii euh, am na ñu fa dëkk ñoo xam ni ñu ngi liggéey port ñu ngi liggéey Dakar ñëpp a ngi kii daf ñu arrangé soo xoolee y a des Rufisquois yoo xam ni Diamniadio c'est tout près de Rufisque tamit dañuy liggéey ñooñu def leen di arrangé te tey jii boo xoolee nit ñi amuñu moyen ñëpp mën a am oto wala ñëpp mën a am moto donc terre bi lu am solo la parce que ñun bi ñu nekkee xale train bi daan ñëw foofu gerte yi di daanu ci raay bi dañ ko daan for boo xoolee gaar bi moom lañ doon woowee àjjana bu bees moo gën a feex ci Tëngéej fa lañ daan féexloo mais tey jii ñun ñi nga xam ne ci année yi nga xam ne train bi daana daw fekkoon nañu fi tey ñu retourné naan Macky Sall ñëw indil ñu terre mënuñu am lu ñu sentiment de contentement et de mbégte mais beneen bi nga xam ni nag moo ci moo war a am mooy encore une fois échangeur yooyu nga xam ni dañuy ñaan le président Macky Sall bis bu ma jëlee Tëngéej bu ma gañee le 23 le 24 incha allah moo mën a dem toog ak président waxtaan ak moom ni ko waaye échanger laa bëgg pour Rufisque te yaakaar naa ni président du ma neenal parce que suma xarit la léegi nag ñi doon wax naan terre bi du daw terre bi du fi dawee wala bu dawee ñu changé sant nañu tudd Ousmane Terre am la parce que sénégalais waroo iñaane sa bopp waroo iñaane iñaane sa réew soo amee un président de la république mu am on bon programme pour les sénégalais ñaanal yàlla mu sotti ak jàmm yow bis boo ñëwee boo jëlee nga indi projet def ko mais nit ñi mënuñu fi nekk ci réew mi Macky Sall di liggéey dëgg dëgg neex yàlla waxuma ko parce que Macky Sall laa faral ah. ñuy liggéey yéen ngeen di nekk yor seen i micro taxaw naan ay bu luy sottee ah naa changé sama temps tey ji boo xoolee démb Sénégal yëpp photo Ousmane Sonko image bi lañ jël di ko di ko statut parce que nit ñi. tey ji yow bu fekkee ni c'est tu es boo xam ne tu aspires diriger un pays chaque jour da nga war a génne ci sa gémmiñ ak sa xol loo xam ni luy doxal askan bi la mais yow ñoo xam dañuy prétendre jiite réew te foo leen tudde ñu ne ay nitu fitna la xeex sànni génn leen toj terre bi nag dañ ko defar la jeunesse sénégalaise laay lancé message bu ñu nangu kenn jël leen di leen def ennemi état américains yi faloon nañ Donald Trump américains yëpp ànd woon ak moom te doo gis benn américain génn dem di toj benn édifice boo xam ne état moo ko moom parce que boo lakkee car Dakar dem dikk yow mi ko lakk yaa ko moom sa car la boo demee ci terre bi nga sànni fa xeer terre bi ngay xaañ yow yaa ko moom Macky Sall moomu ko Macky Sall daf ko fi def dafay dem bàyyi ko fi donc nag loolu il faut que ñu ñaax la jeunesse ñu xam ni tey ji ñoom waruñu nekk ennemi état mun nga nag tey ji état di doxal loo xam ne neexu la yow nga gën a xam nga dans la discipline mais gën di toj di sànni toppaay opposant véreux yoo xam ne tey jii def nañ seen coalition boo xam ni kenn ku ci nekk tey ci fit na nga ne ñii dañ leen jiiñ viol ñii ñu jiiñ leen crime ñii ñu jiiñ leen xam nga sàcc est-ce que la yow tey jii au lieu nga jël sa turu coalition tudde ko turu bu baax nga tudde ko yeewi yow sa bopp nga bëgg a yeewi mais askan bi kenn yeewu leen yow tu es libre yaa ngi nii tey jàkkaarloog man di ma interviewé yaa ngi ñëw fii léegi laal sa perjom dem sa yoon keneen ak keneen noonu ñun ñëpp ñu ngi liggéey donc ay tur yooyu am na tur yoo xam ne tur bi rek dafa àndul ak Sénégal ay yeewi askan bi mel ni askan bi leen leen takk askan bi kenn takku leen nit ñi dañu libre ñu ngi doxi seen soxla ñi ñu tënk nag mooy ñi nga xam ne dañoo jàpp ni def nañ jubadi parce que du ma ni jubadi lañ def mais jàpp nañ ni jubadi la ñu def parce que man jàpp naa ni li gën a ñàkk fàddi ci réew ci om politique moo ñu jiñ la affaire viol mën nañ la waxal sàcc xaalis mën nañ la wax escroquer fii mën nañ la wax mais dafa am loo xam ni c'est petit pour ñu koy jiiñ koo xam ni tu aspires diriger un pays voilà. bu ñu ñëwaatee ci élection yi man wóolu nga sa bopp trop. ma daaneel ma ma pare ak ñoom. waaw non parce dama parce que dama dama nekk doomu Tëngéej yàgg a jël li ma man ci sama doole ci sama wërsëg di nga def biir Tëngéej si sama xalaat ma koy def biir Tëngéej lu ma for yóbbu Tëngéej te gis naa ni jeunesse rufisquoise bi tey jii ña fa nekk may xëccoo ñoom c'est des maires sortants ñoo xam ne def nañ douze ans amuñu bilan. man ñi may xëccal amuñu bilan ñeneen ñi si topp dëkkuñu fa man maay doomu dëkk bi dëkk fa lu ma am yóbbu fa sama xel dafa war a dell yàlla nag kuy bëre ji yow boo ngemboon mbër di ko yóbbu làmba ja mu naan bu ma demee damay daanu mais du la motiver moo tax man dama jàpp ni su ma demee damay gañe mais su ma jàppoon ni su ma demee du ma gañe du ma dugg ci làng gi donc loolu moo tax ci lu foofu laa ko wér ci lu baax li ma yéen a tënkee di ko def pour la ville de Rufisque ni nga xamee ni tey waa Rufisque fonke nañ ma ko tey tey jii les radars li li li les journalistes yi wax non radar radar yi yow boo amee ay radar yónni leen Rufisque rek tey ji daal njott rafet na yàlla nag moo xam lan mooy am parce que tamit nit ki doo gëm sa bopp ba nii par force may gagné mais jàpp naa ni balaa mi di ma gagné leen parce que Rufisquois yi fonk nañ ma bëgg nañ ma te gëm nañ ni gëm naa Tëngéej te dëkk boo koy dëkk da koy dig ku am ful ku am fayda ku am fit ku bëgg dëkk bi tey defe naa ni yëpp yow yëpp daje nañ ci man waaw ok euh, ñu terminer ci question sport bi yow ku la xam-xam ne am multidimensionnel nga tey jii nii ñu ngi dem ci Coupe d'Afrique euh, coolaa ngi commencé déjà ak FIFA bi gis na li ñu def suñu joueurs yi mënuñu euh, def seen seen préparation yi la preuve Rwanda bu ñu naroon dem mënatuñ fa dem match amical bu ñu fa waroon am duñ ko fa am léegi téye nañ seen joueurs yi ba le léegi Sénégal day dem directement Cameroun ak yooyu léegi nag noo gisee chance su Sénégal ak comportement FIFA bi. non rafet njort laa ci am parce que man dama jàpp ni Sénégal équipe yi fi nekk ñu ñoo leen mën individuellement suñu joueurs yi ñoo leen mën collectivement la ñuy wax yàgg nañu jouer te tamit tey jii loo mën a wax euh, suñu suñu joueurs yi tey jii loolu noonu foofu ñu nekk fa la ñuy gañee fa la ñuy amee seen gagne-pain mais dafa am loo xam ne tamit man c'est un parce que wala wala dañu xaw a xeeb les africains parce que tey jii nit ki koo xeebal dépense am ñu yàpp la. te dëgg dëgg neex yàlla ñu ñu am suñu ay joueurs forme leen fii au Sénégal ñoom ñu gis leen ba seen talent doole ñu jël ay milliards di leen ko fay tey ji Afrique di organiser ngay taxaw naa ay petit compétition ak ay duñ fa dem tey nag loolu Klopp moo ñu ci gën a yàpp parce que mës na fi taxaw naan di di di di di di traité euh, coupe d' Afrique nation comme de petite compétition te tey jii confirmé na ko parce que mu ngi téye jour yi ba le 3 mais loolu loolu na dafa war a nekk euh, source de motivation pour les joueurs tey jii bu fekkee nii li may wax nii joueurs yi dinañ ko dégg joueurs yi laa koy adressé lii bu mu déstabiliser benn footballeur nañu gëm ni tey jii collectivement dans leur tête yàgg nañ football et puis individuellement ñoo mën gars yi te man jàpp naa ni bu ci Sénégalais yëpp jàppee mu bañ a am ay xëccoo bu ñu demee dañuy am ndam parce que bële passé man maa ngi woon ci final bi bi ñu koy fubal en Égypte bii bi ni mu duggee kenn xamul bal bi fan la jaar bu dugg ci camp yi fa la ma fekk man man bii bi dugg na lu mat cinq minutes ma ni dugg na parce que pour man lu romb la est la donc te équipe yi ñu doon footballal gis naa Sénégal ni ñu doon progresser par rapport ak yeneen équipe yi donc jàpp naa ni ren coupe bi mën na ñëw Sénégal bu xool yëpp àndee na xool yëpp ànd rek kenn bañ fi nekk naan ay buñ ma joxee lii parce que man dama lenn rek laa contre mooy ñuy taxaw naan man marabula nañ ma jox lii équipe bi gagné boo dee Sénégal sénégalais defal rek te yàlla tax parce que sénégalais nga tey ji bu équipe bi gagné say doom kontaan Serigne boo fi gis am na soxna am na ay doom say doom dañuy supporter équipe nationale léegi yow say doom nañ la fay fay bi mooy fexeel ñoom ñu am ñu am mbégte honneur maan daal maa ngi tàllal suma loxo bépp sëriñu maaman ak sëriñ yi nga xam ne tamit mooy euh, sunu sëriñ su baax si ñu ñaanal équipe bi yàlla may leen ndam Sénégal dina